بالتخلية والتحلية وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وخديمه القائل إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا نفعني الله وقال wala takun multafitan illa lima yujzi yajzibu qalbaka ila rabbi sama wa kullu ma yaxulu bayna rabbika wa baynahu fattu tafuuqu gayraka wa ummatihi wa sallama tasliman mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi ziar mboolem ñi teew ci jotaay bi tabaarakallaahu dellu seet nañ ci bis bi gannaaw biñ ci teewee daaw yëkkatoon fii kàddu ñaanoon yàlla fekkee ko te mu nangul ñu yàlla dogal na fekkee nañ ko ñu rafet njort ci ne nangul nanu tabaarakallaahu di jiital ci néew bi ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñi nga xam ne moonu jaboote ñun ñëpp waaye di nuyu génération L'Ikhlass ñi taxawal bis bi tabaarakallaahu ak Cheikh Saleh Mbacke Lixlaas ñu ngi lay ziar di ziar mboolem ñu àndal ak yow ci bis bi di nag sama sëriñu bopp nga xam ne moom laa àndal ñëw muy Cheikh Moustapha Saleh Sow waaye dina ñu fekk lu mel ni sëñ Saliou Seck ak mboolem ñi nga xam ne fekk nañ leen tabaarakallaahu di guddal dañuy indi mawdoo bi nga xam ne. Cheikh Salih bi mu ñëwee kër ga waxoon na ma nan ko waajal nee na mooy ixlaasul qalbi sellal xol waaye di mawdu boo xam ne mbokk yi am na solo lool ndax dama ne mawdu bi am solo bi toll na ci ñi jiite réew mi tey danoo waroon a ñëw ci tànt bi toog ñun ñépp ñu ñuy baat rek ndax mawdu la boo xam ne ñoom bu tasaaroo nit ñi dégg ko seen njariñ la ndax danoo war a def loo xam ne li fekk ixlaasul xal bi amul du mën a am waaye dama ne ñi jiite diine ji tey ji dañoo war na ñëw teew yendoo fanaanoo jërëgéen jëf ndax moo dox ndax xam nañ ne tabaarakallaahu àdduna bi jaxasoo yépp buñ ko seetloo rek mooy xol yi nëx yi ndax Euh, jëmm ñaari xaaj la al insaan dañuy wax na xismaani am na lu ñuy wax ruux waaye am na lu ñuy wax al jismu nit ñaari xaaj la ruux ji ak jëmm ji ruux bi dafa am lu muy dundee mooy jëf yu baax yi bëgg yiw jëfee ndigal yi ak moytu tere yi loolee moo koy may doole jëmm jim àndal nag moom li muy dundee mooy di tabaarakallaahu lekk ak naan ak sëy yu demee noonee ak mbiri adduna yi loolee mooy dundal jëmm ji waaye nag am seen diggante tabaarakallaahu lu fa nekk ñu du ko wax xol moom xol bee nag dafa am ñaari wàll genn wàll gi jàkkaarloog roox gi genn wàll gi jàkkaarloog jëmm ji roox leer la jëmm ci suuf lañ ko bind su fekkee nit ki dafa dundal ruux bi yafal ko tabaarakallaahu leer googee di bàyyi ko ci ruux gi day yëbb ci jëmm do ci ci xol bi ba mujj jëmmi ki ak mbaax ak leer ak jëf yu baax yi mujj muur ko ba nga xam ne lu mu defat lu baax lay doon waaye su fekkee dafa sàgganee ruux bi topp rek jëmm ji ak lu ko neex ak li mu bëgg day mujj yooyee di bàyyi ko ci jëmm ji muy ay lëndëm ak yu suufee day yëpp ci xol bi ba nit ki dootu mën a def lu baax te xam nga nit mën naa tiim léeg-léeg ak ganaar bu duggee ci néeg bi rek mu ne na génn na génn waaw yaakaar naa ganaar léegi ko joxoon Cheikh Moustapha dina am neneen lu ci waaye dina toll di jëmmi jamono bu duggee ci néeg bi na génn fekk la ko waral ganaar moom am solo ga ma nga fam newoon waaye moom moo tawat xolit leen leen mu tawat ba jëf yu baax yi du ci sawar wala mu di ko moytu wala mu di ko wan gannaaw fekk diirit war na koo bëgg waaye tawat gee tax mu di ko bëgg tabarakallahu euh, moo tax hadis ba wax na ne maanaam lu bon ñëpp dañ koo bañ moo tax malaaka yi su nit nekkee ci kaw suuf def ak mooy yàlla euh, maanaam dañuy wax yàlla yu ne ni suuf si danaan yàlla bàyyi ma rek ma wan diw sàngam mi nekk ci sama kaw def ak mooy yàlla ndax yow kenn wur laa mooy su ko defee géej gi dañ naan yàlla bàyyi ñu rek ñu labal diw ndax nekk ci kaw suuf di mooy duñ ko seetaan su ko defee euh, montagne yi ne yàlla bàyyi ñu rek ñu ñu ñu ñu tànn ci diw mu jugee ndax nekk ci ci kaw suuf di la mooy wuruñ koo seetaan su ko defee noonee lañ koy toppee ba malaaka yi kenn ku ne dugal ci sa kàddu waaye yàlla danaan leen a antum xalaqtumuuhu waaw ndax kookee ngeen bëgg num tuddati yéen a ko bind ñu ne koy laa yaa rabbana ah nun de dëgg dëgg binduñu ko yàlla ne law xalaqtumuuhu la raximtumuuhu ñooñee bu ngeen leen bindoon da leen yërëm bàyyi leen maag sama jaam yi ndax nee na man maay seen soppe ku ñëw ci man te indiwaale ak tuub boo ñëwee mag gàttandu la dalal la walla ne la maa fi ne su ma ñëwee indiwaale ak mooy soo ñëwee ma gàtt ndal ne la ah mbër da nga fee séen ko ma ëpp yërmande nga ne ko déedéet mu ne la man maay alxafuur maay arrahim kon sunu borom tabaaraka bañ na ak mooy waaye ku koy defit moo tax nga dégg siraaju saalib ne waman yamut walam yatub an wisrihi fawt ilallahi jamia amrihi képp koo xam ne dangaa faatu te doon ab mooy katab yàlla nee na bul jugé de ndax jugement ci loxol yàlla la nekk nañ ko ko bàyyee nit ñi ñooy bëgg tabaarakallaahu nekk fii ci àdduna bi juge wàll nit ñi te demu yowmal xiyaam waaye tabaarakallaahu laa bil adaabi lil musii yuqtau wal kufru wa taxillu na yumnau moo tax yàlla bu ñu boo bàyyee ko jaamam yi te xam ne li mu bëgg ci ñoom mooy ixlaasul xal bi na xol yi sell waaye ku ko jëlee fi di nañ ko bàyyee yàlla rek ndax moo ko bind moo ko moom waaye moo dox bi nag tabaarakallaahu bu ko ahlu tasawuf déggee daañu bëgg ndax ñoom seen mission lépp mooy sellal xol mooy defar xol ba nit ki mën a texe suñ tubaab wax nañu ko wal xaasilu suufi yu aalimun amil bi almihi xaqiqatan wala ñamil fa soora soofiyan min al aqdaari mumtali bi qalbi min al anwaari kon ahlu tasawuf seen mission mooy fexe ba xolub nit ki fees dell ak kon moo tax mawdoo bii di ixlaasul xalb danañ solo suñ nag nee na tabaarakallaahu ci nit ñu ko jàngalee yàlla dañ koy askanelee ci àdduna ñetti néeg benn bi mooy almasjidul haram beneen bi mooy almasajidu benn bi mooy xolub nit ki ñetti néeg yooyu lañ wax ne la yàlla am ci kaw suuf waaye nag boobee di xolub nit ki da koo ñor moom yàlla moo tax suñ tubaab tee ñu ko jàngal ne wa zayyina zahira mawdia rabbil anami badalan amma zahar nee na nañu rafetal nañu sellal nañu jekkal xol yi ndax mooy bërëb bi yàlla di xol waaye nag tabaarakallaahu ñu ëpp ci ñun dañuy bàyyi roox gi ñu war dundam ndax moo ñuy dimbali fële yem ci jëmm ji te dee nga wolofalkat bi la ma waxoon yaram wi ngay yafalee xont di raay ak diw suuf rekk a koy mujjee ak sax yi gën a faatu waaw kenn du mucc kuñ fi dem sa ngénte faw ñu dem sa dër li métti kon nag nañu wàññi xemmemteef yi ak mébét yi te xentewoo yàlla te muñ bànneex yi bànneex bakkan seytaane teg ci duniyaa ñooy ñeenti noonu jàmme limoon na yooya kon nag tabaarakallaahu loolee bokk ci lu ñu dimbale waaye nañu dundal xol ci jàng ak sikkar ak di xalaat yàlla di teewlu ay mbir loolu mooy dundal xel mooy ak sikkar yu demee noonu waaye bu ñu seetloo alayhi salaatu wasalaam dix am na ko makka waaye lim doon def mooy ixlaasul xal bi sunu mawdoo bi alayhi salaatu wasalaam dix ans yi mu def màkk yépp moo doon liggéey déggoo fu mu digle fa julli déggoo fu mu digle fa joxe azaka digle wu fa aj màkk digle wu fa dara lu nañ raxas xol yi ndax juddu na ci mooy yàlla judd na ci bokkaale yàlla tilim na salte na te xol bu tilim doo gis yàlla mu nekkoon nag ci nu muy def ba raxas xol yi nu muy def ba sellal xol yi waaye Cheikh Ahmadou Bamba yi ba mu tàmbalee ci loolu la nekk ndax moom ba tàmbalee dafa ñëw ci iraada iraada mooy liñ tàmmoon nañ ko bàyyi te ñëw ci li yàlla bëgg al muridu wa man yakun kadaaka fa huwa suufi nga xam ne boo demee ba nekk murid saadix da ngay nekk mutasawif bu mat sëkk boo xam ne sa xol bi leer day leer naan tabaarkalla waaye euh, bu ñu xoolee dañu gis li tax thème am importance mooy xol ak xel danoo bokkul ndax xel lañ koy doyee mooy moom na xalaat jéem a layal amuk yàlla bi su ko defee jéem wane ni mën a doxale ci àdduna ndax àdduna ba ñu fi yàlla wàccee daf ñu jox ay matériel yoo xam ne dañ ko war a jëfandikoo léegi nag xel moo ñu dimbale ci yooyee gannaaw bi mu xalaatee ba indi résultat bu la yàlla yàlla am na su ko defee xitaab yi yàlla di indi mu jéem ma xool nu mu koy déggee ba man ko pratiquer na moo tax boo xool li mel Ibn al ba mu tàmbalee rek ba mu nuyooyee ñëw ci nangam wa baadu lam ca teg mooy wa xukman al aqal yi ndax xel lay mission mooy mu jéem a layal am ak yàlla gi su paree ca loolee nag xol daal di jël liggéey bi mooy jéem nag xool li muy amee contact ak yàlla moo tax naasi dafa wax ne wa xukman al aqal yi xadiyatun bila waqfin ala aadati nawaadi anjala moom nag aqsama muqtadaahu bil xasib tumaas wa hiya al wujubul istixaalatu fa waajibun laa yaqbalu nafi bi xaal wa maa aba subuta aqlan mu xaal wa jaizan maa xablal amrayni simni dara wa nasr kulli xasim ñëw ci awal waajibin ala man kulli fa mu makkanam nasr ay wa rasul bi sifaati maa ali nasr ayaati ila axiri tabarakallahu ba mu pare ñëw ci yujibu lillahi wujud wal xidam nga xam ne comme xel mission mooy mu layal am ak yàlla gi tabarakallahu mu njëkkee ko wane ne xelam mission mooy ñetti xaaj xool diw ne lii lu mën a am la lu mel ñu ne la yàlla am na wala amul automatiquement sa xel wala ñu ne la yàlla amul jërul xalaat danga nga naan yàlla am na wala ñu ne la comme lu mel ne euh, fa waajibun mu andi wujub al istixaal al jawaas mu ne la jawaas mooy lan nga ne jawaas mooy amul nit nit dafa neex yàlla rek mu amal ko bu ko neexoon bañ koo amal su ko defee xel nekk ci loolee andi melo yi jaadu ci yàlla ju demee noonu yajibu lillahi wujudul xidam ka dal ba xaawal xinam mudlu xaam wa xulfu li xalqi bi laa wa waxdatu daat wa sunu fian wa ba ñaar fukki melo yi nga xam ne mënta ñàkk ci jëmmi yàlla ji daal di mat xel kon loolu mooy mission am tabaarkalaaw ñu ci yeneen ñi bu xel dajalee loolee ba noppi nag dinaan leen li ngeen ma santoon def naa ko kon nag wujuduhu lahu dalilun qaati'un xaajatu kulli muhaddisin bi saani'a su ko defee moom xel mission am jeex léegi nag xool ñëw xool tabaarakallahu xam nañ ne importance ba moo tax Cheikh Ahmad Bamba indi na ko ci ay mbindam yu bëri ndax solo xol tabaarakallahu islam dafa ñëw ngir na sellal suñu xol yi wax naa léegi ne 10 ans alayhi salaatu def na ko Màkka ngir la seeral xol yi ndax fexe ba sa xol luxe mu ëpp solo fexe ba sa jëmm luxe ñun nag duñ ko def lañuy fexe mooy kenn ku ne na nga mën a solo rafet teg ca mbaxana mu rafet téye sa kurus gu rafet téye sa téléphone bu rafet yooyu nga xam ne mooy yooyu zahir yi ci loolu lañ nekk te suñ tubaa def na woon wa xal ba ndax mooy mawdi nadraba te kenn ku ne ci ñun bu amoon gan gu ñu fonk buy ñëw dana yeesal néegam dana defar lal ba laal parfum ba mu gën a fonk lalaat mokket yeeg nangam te loola ci zahir la waaye xol bi nga xam ne yàllaa ko moom kon mbokk yi moo gën a jagoo loola yàlla comme fi la jëm si war na noo fexe ba bu ñëwee lenn lu koy déranger du fa am war na noo fexe ba xol yi euh, ñeme wax lu dëgg génn ca bëgg ngisal génn ca def lu yàlla taxut génn ca mbooleem sikk yi nga xam ne dañuy xañ yàlla war na noo fexe ba bu yàlla duggee suñu xol tabaarakallah du ko du waaye xam nañ ne xol boobu yàlla bëgg ñu am nga xam ne nee na ku ko fa andi di nga am wàccuwaay bu kawe ci moom mooy man atallaha bi xalbin salim xalbun salim mooy xol boo xam ne mucc na ci jàngoro shirk mooy bokkaale yàlla loolu nag alayhi salaatu salaam waxoon na ne jëmmi shirk moom mën nañ cee mucc waaye nag a shirkul asxar moo ñuy të mooy yu ndaw yooyu li mel ngis la yu demee noonu tabaarakallaahu waaye itam tabaarakallaahu jëmm ni ñu xamee ne bu ñu bëggee suñu jëmm yi dugg ci xadratul ilaahi yi lu mel ne ngay julli ndax booy julli dañ lay tegal ay charte charte ah dañ naan la shurutu istiqbaalu tuhurul xabasi wa suturatul awra toolu xadas boo bëggee sa jëmm booy julli mu dugg ci xadratul ilaahi yi da ngay fexe ba mu respecté tuhurul xadas waaye mu respecté tuhurul xabas tuhurul xadas mooy soo waree sangu nga sangu boo waree jàpp nga jàpp boo amee ngànt nga dem tiim tuhurul xadas mooy ah, tuhurul xa tuhurul xabas mooy sa jëmm bu mu am sobee sa yére bu mu am sobe barab bi nga julli mu am sobe boo respecté yooyee su ko defee nag sa jëmm dugg na ci xadrat ilaahi su ko defee nag lu des xol bi ndax xol bi euh, bu fekkee toppatoo woo ko fexew ba mucc ci sikki yi day mujj ci aaya boobu yàlla di wax ne kalla barraana ala qulubihim maa kaana yaksibuuna gaa yi seen xol yàqu na ñu ne ñu ne ko maa samaratu raamel qalbi mu ne kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun yàlla ne nag gaa yi liñ nekkee mooy xeexante beeg yàqante der beeg sikkalante beeg ngistal beeg nangam def lu yàlla taxul dem na ba muur seen xol te aleyhi salaatu salaam wax na ci hadis ne saa soo defee benn bàkkaar day def ab tomb bu ñuul ci sa xol bàkkaar yee di ñëw tomb yee di ñëw bàkkaar di ñëw tomb yee di ñëw ba mujj sa xol bi lépp day yëbbu ñuul su ko defee nag yow euh, da ngay am barrage sa digg ak sa borom. kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun su ko defee nag nga am benn baaraas sa digg sa borom jëf yu baaxee dootoo ci sawar barab yi mel nii ku la ci woo nga ne damay nelaw wala damaa am suba programme wala nangam nga xam ne yow la la koy bañ loo moo tawat tabaarakallah moo tax nag li ñu ci mën a dimbali rek mooy jëf te yàlla tax moo tax suñu tuwaasoon wa amal liman ida lahu amilta bi waji ixlaasin ridaahu nilta wa amal na nga jëf ñu ne ahmadu ngir kan mu ne liman ngir ki nga xam ne ida lahu amilta soo jëfee ngir moom waaye nag bi waji ixlaasin na nga ànd ak génération li su fekkee da ngay sellal say jëf jëf ngir yàlla ridaahu nilta da ngay am gërëmam wa amal liman in taktasib ridaahu yeg fii ko fi daari maa tax shaaw na nga jëf ngir ki nga xam ne saa soo amee ngërëmam lépp loo doon ragal ci àdduna mu dàqal la ko loo war a ragal ci àllaaxira mu dàqal la ko waaw ndax moom ku lu laa lee lu la neex laaj da ngay seetu di cee buy nalaw puuj paaj kon moo tax tabaarakallaahu ku jiital ngërëmal yàlla tabaarakallaahu da ngay seetu tabaaraka am na ñoo xam na nag xamaguñu seetu ndax ay gone waaw tuba waaw gars yi gars yi waaye nag suñ tubaa di wëy ne wax waamal li ah, man inte tajib waamal li man ma man istardaahu bi taatin an kulli ma siwaahu nee na na ngeen jëf ñu ne ahmadu ngir kan mu ne ki xam ne tabaarakallaahu ku ko jëfal ba am ngërëmam lépp loo bëgg mu féetewoo la waaw suñ yàlla moom boo ko jëfalee ba am ngërëmam dalee féetewoo fépp waaw dalee féetewoo ci kanam li gars yi naan tabaarakallaahu maa la féetewoo fépp yàlla moo lay féetewoo waaye nag suñ tubaab nee na nañuy jëf ngir ki nga xam ne intajtanib ridaahu maanaam intajtan isajtanabta nahyahu niital karaamata wa kulla allah ah nee na nañu jëf ngir ki nga xam ne soo moytoo ay tereem tabaarakallaahu di nga am teraanga waaye lépp loo bëgg di ko am moo tax sallallaahu alayhi wa sallam waxoon na nañu moytu bàkkaar yi ndax euh, bàkkaar yi mooy iltifaat xam nga dangay ngay dégg suñu tubaab ci mbir na mu naan wóoru walladi man sabata fiihi walam yaltafita daa amalin yakun fata inda shakuril akrami waaye iltifaat buñ jàpp ne mooy nii de loolu bokk ak iltifaat iltifaat du wëlbati sa bopp iltifaat xol a koy def saa soo jàppee ne lenn na ngi lu dul yàlla yaa ngi tàmbale tardé te loolu àdduna wane na ko léegi waaw àdduna wane na ko léegi ci nit ñi rek mooy tax nit di tardé ndax su doon ne yii xew ci àdduna da am lenn lu ci mën a musal nit lu dul yàlla lii xew si mbëkki démb nu kon waa si mucc si ndax ñun ci àdduna dañoo jàpp na li fi ëpp solo mooy ab xaalis te chinois yi xam nañ ne kenn mën ëpp leen xaalis ci àdduna fu mu ne ci dëgg-dëgg yooyu première puissance mondiale def na ni yàllaa la leen roof jàngoro joo xam ne xamuñ fu ñu jëm ak moom te barab ba mu ko teg yàlla moom tabaarakallaahu damaa mos a toog ci génn ne man waay kenn du ko laal ma ne ah kon ne fan yii loolu la yàlla wax nee na waayam kenn du ko laal ndax chinois yi dañoo xool raison bi nga xam ne ñoo ëpp jullit ñu ne leen bàyyi leen war ñu lànk ñu ne leen dindi leen seen muuraay ñuy lànk ñu jël jigéen ña yóbbu ci soldat yi ñuy séy ak ñoom. ñu jël góor ñi ñenn ñi ñu rey leen ñenn ñi ñu tëj leen barab boobee ca yàlla wàcc jàngoro ji bañ gindi jullit ñi ñu xool ña fa nekkoon ñu mat cinquante six millions mu wàccee tabax doole ci ñoom pour ñu ne Sinoa yi kenn du ëpp doole dix la tabax hôpital boo xam ne ay milliards la koy tabax te dix jours lañ ko war a tabax six jours lañ te mën a kawe te def nañ ca milliards yoo xam ay deux mille personnes ñoo koy xëy nit moom àdduna lu ko war a sinuwaay moom ko waaye kenn ëpp leen alal te yàlla leen teg jàngoro joo xam ne xamul fu mu jëm ak moom jàngoro ji bisu tey rek 46 personnes dee nañ ci jàngoro te ñu ngi am 2000 et quelques cas ci àdduna ji wees benn fan kon ñoo xam ne jékko nañ àdduna waaye yëf yi nekkul ci àdduna yëpp ci loxo yàlla ne nekk buñ jébbaloo ci yàlla rek suñu yëpp baax kon nag tabaarakallaahu loolu la ñuy jàngal mooy fexe ba xol yi sell te xam ne. xol yi bu mu ci yàlla bu mu ci kudul yàlla waaye na wéeru ci yàlla waaw gis ko am alal bu mu tax nga bàyyi sa programme topp ci gannaawam jàpp ne yëf yi ci moom lay baaxee yëf ci yàlla képp la nekk tabaarakallaahu ndax yàlla moom ku ci dal ngërëmam lu laa neex laaj tabaarakallaahu waaye ah al ixlaas li mu ci jublu tabaarakallaahu mbokk yi mooy fexe ba xol bi sell ndax. nit ñi fi mu toll léegi danga gis ku def bàkkaar bu génnee na cal mel ni dara defu ko waaw du ca am lu ko métti du ca am lu ko naqari te loolu musiba la loolu sax moo gën a garaaw def bàkkaar ndax day wane na yow yàlla génn na ci sa xol saa soo yëgee ne boo defee bàkkaar am na lu métti rek yëgal ne yàllaa ngi am cër ci sa xol waaye saa soo defee bàkkaar ba noppi ne xew ku ma xool ma xool ndax nit ñaa ngi def lu ko gën a garaaw yëgal ne yàlla amatul ci sa xol te loolu garaaw la maanaam loolu sax moo gën a garaaw def bàkkaar tey ji boo njaaroo ba nopp am doom doom ju juddu nga am sañ-sañ ne dama koy ngént yëgal na loolee nga def moo gën a garaaw njaaro ba ndax ba nga ko defee yow da ngaa waroon la dem làqatu ji wala nga génn dëkk ba ngir rus def ko ba noppi am fit ne damay ngénte loolee moo gën a garaaw bàkkaar njaalo ba te wax nañ ne njaalo boo ko defee booy sangu pepp bu dal ci suuf maanaam pepp ndox bu dal ci suuf rek am nga ca bàkkaaru ku rey ab yonent loolu garaaw na def na nit ñi dañoo mel ni tabaarakallaahu jamonoom lañ toll ku ko def bokkoo kon tabaarakallaahu sa célibataire yi nañ bàyyi xel loolu ndax yéen saa sala moo tax mi ngeen di dimbali nee na ngeen dëkkee woor ndax si biir soosee dina xëy ci mooy yàlla woor day xeex ak moom tabaarakallaahu Moustapha mu ngi noonu waaye nag bokk na ci li nga xam ne day yàq xol nafsiya sama bakkan bii fexe naa ba moom ko ndax bakkan manees na koo jëriñoo boo fexee ba war ko rek mu la seytaane mi nga xam ne kenn mënu koo jëriñoo rek suñ tubaab ne moom dàq naa ko mu génn wa zax-zaxtu laañ ñu ne ko ahmadu noo def ak àdduna mu ne axartu min duniyaahu zaadi lil jinaan fexe naa ba wut fit yóbbal moo mën a yóbbu yoonu xiyam ma dugal sama poos ñu ko bànneex mu ne wal xaadil hawa tàggat naa sama bànneex ba mu topp sama gannaaw tabaarakallaahu lu ma bëgg moom la sama bànneex bëgg lu ma bañ a bëgg ko moo tax waluy safal jinaan sama na sama xol yiw na sama xol kon tabaarakallaahu Cheikh Ahmadou Bamba loolu mu ñu koy jàngal fu mu toll dañu war a xam ne tabaarakallaahu alayhi salaatu wa salaam waxoon nañu ko yàlla du xool suñu jëmm xool colkay yi yàlla la muy xool mooy xol yi moo tax suñu tubaab fu mu toll dafa daan ñaan suñu tubaab fu mu toll dafa daan ñaan dégg nga mu naan inni sa'altuka wa 'ilman kathiiran nafi'an yàllaahu yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma xol bu maa ngi lay ñaan tabarakallahu nga musal ci lépp loo xam ne day yàq xol ndax bu ñu seetlu tabarakallahu suñu tubaab dénkaan yu daan na ko ci wax ndax dafa am lu mu wax ci mu nal yu sudur nee na wa intul islaaha aw soolin maa li wajhi man liya adaahu qamaa fa asliha alqalba bila tadnisi xatta tura billahi daa tanisi suñu tubaab ne li ñu li tax ñu mën a defaru xam na ko li tax ñu mën a yàqu it xam na ko li tax ñu mën a defaru mooy ñu fexe ba xol yi mucc su ko defee cir yépp de ànd ak moom wayen tur islaaha aw saalim maa li waji man liadaw xamaa fa aslihal xalba suñu bëggee tabaarakallaahu suñu cir yëpp tàggatu suñu cir yëpp yiw alai saa salam nana ko waxee ci hadis ba alaa wa inna fil jasadi mudaxa alaa xarfu tanbiir alaa yee wa inna fil jasadi mudaxa yaram de am na benn euh, organe bu fi nekk boo xam ne bu baaxee yërim yëpp bu baax ñu ne ko ahmad loolee mu ne alaa wahiyal xalam waaye li tax ñu mën a yàq suñu tubaab lim na ko nee na summal mahabbatu li dunya laha arbaatul arkaan la raay kullaha nee na am na ñeent yoo xam ne buñ ko moytu bu baax si ñun mu ne bu njëkk mooy awluwal maalu bëgg alal am na ñoo xam ne alal rek mooy seen programme Sëñ Tuubaa nee naa képp koo gis mu jël programme am yëpp ko ci alal seetul nan koy amee seetul fa mu koy dugal yëgal na bëgg na na ñoo xam ne tabaarakallaahu boole bi rek te Sëñ Tuubaa waxoon na ca nawet bi xasbuka minu maa yuqimu subaata qawiyan li koy tuuti en rabaa ab ñu sant ñaan Sëñ Tuubaa na fexe ba dëgër lu mën a jaam koo xam ne boo ko li fekk gaa yi jógul doo jóg wa baadal kalaam koo xam ne fu mu toog te joxuñ ko kàddu mu mer suñ tubaab nee na yëgal na bëgg nga àdduna koo xam ne foo toog yi suñ tubaab nee na bëgg nga àdduna na ñoo xam ne fu mu toog kenn du nopp te suñ tubaab nee na euh, fa kasootu dax ki tumitul xal baa bëri ree day rey xol te fu ne nit ñi fi nekk ci réew ay comédien boo waxee ñoom sama mucc laa sama nangam la kenn xamul toll suñ tubaab nee na bu xol yi bi kenn dootu ko mën a régler ak yeneen yi xam ne tabarakallahu lim ko de waaye it suñ tubaab na xool bu wëttee te wëttiwul ci caawas yàlla buy ñëw ay musiba lay indi waaye soo yëgee ne wëtti na te wëtti si caawas yàlla buy ñëw indiwaale barakaat yi moo tax suñ tubaab ne ku bëgg ci xuyóob yi da ngay moytu ci xuyóob yi xuyóob ak xuyóob dañoo opposé xuyóob mooy yi bàyyi ko ci yàlla al anwaaru ilaahiya yi nga xam ne dañuy root ci xolum nit di ko dundal di ko yëkkati di ko may taaru zahir ak taaru baatin ayub yi mooy suuf yi nga xam ne tabarakallahu ñoo am ci àdduna moo tax suñu Tuubaa ne wala takun multafitan illa lima yajzibu qalbaka ila rabbi sama wa kullu ma yaxulu bayna rabbika wa baynahu fatru tafuuqu xayraka nee na saa soo bëggee am ci ruyu bi tabarakallahu na nga fexe ba lépp loo xam ne aduna la ak ñoom la nga bàyyi ko ndax suñu Tuubaa addis bi dafa wax képp koo xam ne da ngaa jël sa yitti yëpp def ko ci àdduna yëgal ne yàlla dina la booleeg ñett bu njëkk mooy dang-dang joo xam ne doo xam fan lay jeex ñun ñëpp ci lañ nekk da ngay xëy nekk ci mbir ku la woo téléphone du la jot bi nga envoyé message whatsapp doo mën a tontu da ngay xëy ba ngoon jot nga ne boo xëyee ca bis bu set yàlla na li ko waral mooy xool yi ñu jox àdduna lànk ko ko jox moo tax mu boole nga yitte joo xam ne bés bu set nga di ca fekk du ba sa topp mooy soxla soo xam ne du faju mukk mukk mukk buntu buntu duñ ko fëgg ki la ko bëgg a fajal sax du ko mën a faj ndax fekk yàlla moo nangul bi ñetteel bi mooy ñàkk goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem fu mu ne nii tabaarakallaa kii la ëpp alal moo la gën a ñàkk ndax koo xam maanaam am alal ci doy la nekk te doy la ci xol la waaye su fekkee doy loo loo mën a am boo si xol nit ñaar téeméer sax maanaam daañu leen dégg te yaa ngi yore milliard kon loolu du am moo tax suñu tubaab teg ci juróom-ñaar ci suñu daal na juróom-ñaar a ngi nii yoo xam ne ku ko def te boole ko juróom-ñaar sa juróom-ñaar dina amal njëriñ bu njëkk mooy euh, jëf ju ànd ak ragal yàlla ay yaamal dina xaw fi doon xeex rek mooy euh, ragal ju ànd ak moytu mooy foo toll naan damaa ragal yàlla te doo moytu yi mu bañ mu bu yi ba mooy yaakaar ju ànd ak wut foo toll naan damaa yaakaar yoonu yàlla te kenn du la gis ngay def luy may am yoon suñu tubaab ne loolu dëgg bu ñetteel ba mooy yéene du ànd ak jëf foo toll naan damaa yéene ci sama xol bi man daal damaa bëgg jaamu yàlla damaa bëgg nangam te kenn du la gis ngay kenn du la gis ngay yéene wala nga di ko def kon suñu tubaab ni loolu du am njëriñ ñeenteel ba mooy ñaan guñ dimbalu foo toll bi ñaan yàlla mu may la aw yiw te kenn du la gis ngay góorgóorlu ci suñu tubaab nee na ñu ndax wallazina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa si yàlla nee na ñii kër kër yi laay dimbali waaye ki xëy bu ma yoree sama junne yàlla neen du ma la ko jox damay xool ña nekk ca marché ba ma ñëw jox leen ko yàlla nag mën naa fekk ne kër mu jox ko junne waaye bëri lu ñu am moo tax Seydina Omar bu fekkaan gars yi toog ci garam place yi naan dañoo wakiirlu day jël yaram di leen dóor nee na mosu gis yàlla di taw ak xaalis man naa fekk ne kër mu jox xaalis waaye kii góorgóorlu moom la yàlla di jiital soog a xool yàmbar yi juróomee ba suñu Tuubaa nee na tuub gu ànd ak rëcc nee na ñoru ko tuub day ànd ak rëcc nga li nga defoon daal di leen lii moom li fekk may ànd sama bakkan dootuma ko defati te muy dëgg ci yow bu ñu doon beneen mooy fexe ba yittewoo sa biti te bàyyi sa biir foo toll bëgg solo rafet bëgg takk lu rafet bëgg laal parfum bu rafet te sa biir xol dara ñoru la ci xamoo sax nu ñuy defee te yàlla tax suñu tubaab nee na loolu tabaarakallaahu coono la mu am ak ci waaye nag euh, meññeetum jëf ju rafet dama ci indi ñett xissa a salaatu salaam dafa indi addis ay gaa yoo xam ne tabaarakallahu danoo àndoon ba ñu àndee dem ci àll ba xam nañ ne ay maakaar yooyu dañoo bëri ay montagne ñu dem ba guddi jot ñu ne nañ sor dugg ci montagne bi dallu fi bu bët setee ñu soog a dem ba loolu amee ñu tëdd rek ndeket yoo am na benn xeer wu barastiku ñëw ñëw fàtte buntu xunt mi ñu nelaw ba bët set ku jóg yërndu doo gis dara nga waaw moom bët daa set wala nekkati yow bët seen bañ demee ba xam ne lii lépp la ñu ne ah, yii mbir xew na de ñun de fii moom kenn ku ñu fii dimbali nekku fi ndax sàppar nekku fi te mënuñoo yëkkati xeer ñu ne a ah, nañu xool kenn ko ne jëf joo mos jëf te yàlla tax nga ñaan ci yàlla mu dimbali ci lii lu ko may caaf dina xam am ci ñoom tabaarakallaa koo xam ne def na yàlla man day damaa amoon ñaari waajur yu màgge musuma ñemee reer te reerulu benn bis ma sànni guddee ñëw ba ma ñëwee ma ratt fekk ñu nelaw ñi mu maa reer ñi mu maa jox sama njaboot ñu reer ma taxaw tiim leen noonee laa taxawee ba fajar ñu soog a yeewu ba ñu ma ma jox leen ñu reer ñu soog a reer yàlla su dee jëf joojee yaa taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan nga dimbali ñu ci musiba yu ñu nekk ndax tiit nañu xeer wa daal di diis tuuti waaye mënuñoo génn mu ne ah man a naa gars ko am na wax keneen ku jóg yàlla. man de mosoon naa amas ndaw bëgg ko lool ba may nekk célibataire moom laa bëggoon a aawloo sax mu lànk ndax borom diine la woon fu ne invité naa ko fa ma bañ waaw gars yi xam nañu invité léegi euh, mu mu mu ne yàlla mañ dem ba am soxna jamono di dox mu dem ba tumuranke ak ñàkk dab ko mu am yitte jaaxal ko lool bañ na suturaam xaayo ko mu ñëw ci man ne ma ah alaaji man de dama am soxla sama jaaxal teg maa dimbale nangam de laa soxla ma na kaa ah, li nga soxla di ngi nii am na fi waaye boo ma joxee sa bopp ma jox la moom kay loxo ka jox day weesaloo mu ne ndaw si di borom daal ne ah loolu de moom dee ma ko gënal daal di jóg dem nii dem ba mu yàgg yëf yi soxalaat ko mu xam ne mënu koo ñàkk faj mu ñëw ne ma teg maa dimbali ma ne ko la ma la waxoon rek ba mujj mu ñëw ne ma ah waaw xanaa ma jël ko te ñàkk pexe rek nee na ba mu demee ba nangu ba waa ji war a mooy yàlla si moom ndaw si ne ko te ngaa seet yàlla mu mel ni xol bi dafa yëngu mu daal di ne bërëb jox ko lam ko digoon te bàyyi ko fa ñàkk ma yàlla mu ne yàlla jëf joojee nga xam ne mënoon naa koo jëf ñu tudd ma la rek ma ko su dee yaa taxoon ma jëf ko dimbali ñu ci li ñu nekk ndax euh, caafa ñu bëgg a xam xayra wa daal di ne diis ba gën a sori waaye mënuñoo génn mu ne gars yi jeexal naa ko man na ñëw beneen waaye jóg ne ah yàlla man de son naa am ay surga di leen la gërëloo am ci kenn koo xam ne ba. contrat am jeexee dafa dem bàyyi fa ak fayam ma jël ko jëndal ko ci ay gàtt ak i xar ak i bëy ak i gërëm ak i demee noonu di ko ko yaral ba mu nekk ay gétt ba yàlla dogal bis ñëw rek mu ne dër ne patron sama sama salaire laa jël ma ne ko ah li ngay seen fii yépp de yaa moom mu ne mu ne bu ma tooñ waaye tamit nag ah sama salaire bi ma doon jël si weeru moo fa bàyyi ngaan ma ay gétt yi moom ma ne ko wax naa ko ci yàlla li nga nekk man yëpp mosoo maa xam si caaxaan li nga fi seen muy nag muy xar muy bëy yëpp yaa ko moom mu ne yàlla su ma doon patron jamono jii bu ñëwee yëf yi bëri sama bakkan may not ma ne ko ah xaaral ma dem banque rek yi a jox la téye yëf ya waaye jox gi ma ko jox su dee yow yàlla yow képp taxoon ma jox ko maa ngi lay ñaan nga dimbali ci musiba wu nekk ndax yàgg nañ fi te bëgg nañu ñibbi nee na xëy na wala diis ñu génn. kon nga gis ne def te yàlla tax ak fexe ba seeral sa xol ni mu amee njëriñ dalay jëriñ fii ci àdduna dalay jëriñ fële ci àllaaxira bëri na yoo xam ne des na ci tabaaraka ndax alayhi sa wasalaam saxaaba yi mas nañoo génn am benn quartier bu ñu romb bëggoon ña fa nekk teral leen ñu lànk am kuñ fa maanaam ku fa laalo koo xam ne jàmm ko maa taw lay demee noonu ñu jaaxle gis ay gars yi taw ñu ñëw ne ah waaw yéen amu fii ku mën a lugg yow ah ñu ne ah waaye dañoo bëgg ngeen duggal ñu suñu suñu jëwriñ ji waaye ñun kat suñu jëwriñ ji da am lu ko laal ñu ne ah yéen kat dañoo bëgg ngeen may ñu ndox ngeen làng kon nag bu ngeen bëggee ñu bu ngeen bëggee ñu euh, ñu moccal leen ko da ngeen ñuy fay ñu waxaale ba juboo ñu moccal leen ko ci alxuraan ak ci xol bi sell bañ ko moccee yëf yi wàcc ñu ñëw wax ko alayhi salaam ne ka ah, def nañ mbir de ndax faatiha lañ moccee kookee